salaamaaleykum mbokk yi tu ñuy suivre à travers Touba Argentine TV ñu ngi leen nuyu baax te di leen sant di leen gërëm di am mbégte contenté di ànd ak monsieur le ministre Makhtar Ba ministre des sports mu ñëw fii ci ci Buenos Aires Argentine war a fekkee cérémonie bi nga xam ne si ni moom lañu ñu def suba di cérémonie bi pour Sénégal war a mën a organiser Jeux olympiques yu yu yu junior yi ci ñu am mbégte ak. ak kontaante di ko dalal ngir moo uh, fii ci Buenos Aires monsieur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan Touba Argentine TV. di profito di nuyu suñu mbokku sénégalais yi nekk fii yëpp ci Argentine ak ci dëkk yi ko wër di kontaan nag ci dalal bi ngeen dalal président Macky Sall ñu gunge ko tey mu ñëw nekk invité spécial lu CIO. E ci Jeux olympiques de la jeunesse yi xew fii di quatrième édition bi ñu ñëwee euh, xaar ngeen président mu yegg si waaye taxaw ngeen xaar ko ba mu dem diine ba retourné si ngeen sargal ko tàcc ko won ko ne ko moom mooy seen njiiti réew te loolu lu ñu rafetlu la euh, yéen bokkul bokk ngeen ci ñi xam ne réew boo ca bokkee da ngay dox ci lu koy defar ak lu koy wormal Euh, moo tax euh, ñu leen di jaajëfal bett ma nag parce que taalibe Serigne Touba taalibe Cheikh Abdou bu ñëwee ba Argentine ngeen ne dëkk ko Touba TV ànd ak bu nekk Argentine defe naa ne mbégte rek lañ ci am di nuyu mbokk jullit ñi nekk fii ak mbokk jóge Sénégal yi waaw ah, jërëjëf kon buñ buñ buñ dégloo li nga wax maanaam dafa mel ni invité président pour mu ñëw ci Jeux olympiques yi suba incha allah mën nañoo xam Sénégal li muy wut si fii pour organiser ko lan mooy ci euh, lan la ci gàttal. waaw li xew moom mooy xam nga comité international olympique moom mooy kuréel bi nga xamante ne li muy organiser Jeux olympiques amul benn organisation bu ko gën a rëy dañu xewle nag parce que dañu bëgg ndaw ñi ñu tàggat leen moo tax ñuy organiser li ñuy tuddee Jeux olympiques de la jeunesse mooy rendez-vous boo xamante ne ndaw ñi la ñuy sargal ñuy nekk ci tàggat yaram leen jàngal les valeurs de l'olympisme mu nekk loo xamante ne ñeenteeli yoon bu muy am ci Brésil la amee nii ci ci Argentine la amee nii Buenos Aires euh, président Macky Sall nag ñëw fii ñu invité ko parce que boo déggee léegi ci diine bi ñu demoon discours Thomas Bach nga xam ne mooy président CIO nee na jàpp nañ président Macky comme seen partenaire ci taxaw bu mu taxawu sport taxaw ko tàggat yaram mais taxawu ko CIO. jóge Sénégal dem ba siège ba ca Genève visité ko tey mu nekk invité spécial parce que CIO membres yëpp dañu décider à l'unanimité ne dañu bëgg Sénégal organiser Jeux olympiques yi ñëw ci deux mille vingt deux loolu li muy tekki mooy président Macky Sall ñëw bi mu ñëw fii tey daf fi ñëw ci turu derul bu ñuul ñëw fii ci turu Afrique parce que Jeux olympiques mosta am ci Afrique suñu ko bëggee door Sénégal parce que cër bi président Macky Sall am ci ñoom la waaye taxawaay bi mu taxaw ci doxalinu àdduna bi du ma wax bu Sénégal kon tey li ñuy wax rek mooy président Macky Sall sigilatina Afrique sigilatina der bu ñuul euh, moo tax it euh, ba mu yegsee ba léegi ñu ngi ko koy delloo cër boobu ñi nga xamante ñooy waa CIO ñu ngi ko koy delloo ñu am ci mbégte nag parce que tànn bi ñu tànn Sénégal parce que du moom rek moo nekkoon candidat waaye tànn bi ñu ko tànn li tax mu gën a fës mooy ci gis-gisu président Macky Sall ci taxawaay bu mu war a taxaw ak naka lay développer réew mi développer réew mi jaar ci infrastructure yi surtout infrastructure sportive Dakar Arena arène nationale stade yi ak li nga xam ne moom la sumb dëxëñ ko ci li ñuy tuddee le plan Sénégal émergent tax na CIO am conviction ne Sénégal bu dee Afrique moom rek moom moo ko war a mën a organiser ñu nar ko yëkkati suba officialiser ko jox ko président Macky Sall mu wax ak àdduna bi wax ak waa Sénégal defe naa ne loolu ku bëgg ku kuy bëgg ngir sa réew am nga loo bëggee ngir sa réew parce que defe naa ne loolu rendez-vous la boo xamante ne Sénégal dina nekk la capitale mondiale en deux mille vingt deux waaye. Eh, trois ans yi di ñëw yëpp ci fer boobu bu la ñuy ne parce que ci organisation lu mel noonu la nekk donc euh, président dafay lancer du yàgg li ñuy tuddee le stade olympique de Dakar nga xamante ne Diamniadio lay nekk cinquante mille places bu ko booleek li jot a am ci infrastructure sportive defe naa ne lépp lu ñu soxla ci organisation bu mucc ayib dinañ ko am ci bés boobu. waaw buñ ma buñ buñ la déggee dafa mel ni Sénégal maanaam moog yeneen réew ñoo ko doon xëccoo lu ci mel ni suma juumul Nigeria Botswana i Botswana i Nigeria ñoom ñoo ko doon xëccoo ak ak Tunisie ak Sénégal léegi est-ce que mën nga expliquer lan moo lan la Sénégal maanaam. lim leen rawee teg ba rawale leen loolu bañ bañ bañ fas yéene koo tànn pour mu organiser ko. lim leen rawee gis-gis lim leen rawee moom mooy gis-gis. ci defar mooy une vision. ci lan la wéer li mu bugg a téye réew mi pour jëmale ko kanam daanaka daal pour wolof fal ñu mën koo comprendre mooy yeneen réew yi li ñu leen rawee mooy président Macky Sall la ñu am te ñoom amuñu président Macky Sall parce que ñoom ni ñu gisee développement réew taxul ñu mun ñoo raw bu desul lu dul ñu wéer ko ci infrastructure yooyu président nag comme moom li muy def defu ko pour moom parce que vision bi dafa dem ba deux mille trente cinq pour réew mi la ko defal yàlla fay ko ci loolu ñu ci am mbégte nag ñun ñi nga xam ne def ñu dénk wàllu woowu mu nekk wàllu sport wàllu jumtukaay fu ñuy defa sport yàlla def nag la ñu jot am convaincre na lu monde entier parce que barke dem rek dégg ngeen le président de la fédération internationale de basket au niveau mondial nee na Sénégal sax mën naa organiser fi ñu toll nii coupe du monde de basket ndax Dakar Arena loolu nag képp kuy ni ma ko waxee ku sa réew di bëggal nga gis fa lu baax di kontaan war ngaa mën a kontaan ci président Macky Sall kontaan ci Sénégal. bu ñu jumul maanaam Sénégal bu ko dee organisé ci ñetti sud yi lañ jàppagul muy Dakar Diamniadio ak Saly est mën na wax ni maanaam infrastructure yi yooyu yi ca war maanaam nekk na ba pare wala yeneen yu ñu a tabaxaat la yoo xam ni. pour mu bu doon ñetti pàcc pàcc ñaar na wala yegg que fi ñu toll nii stade olympique bi rek moo des waaye li nga xamante ne mooy hôtel yi parce que xam ngeen ne léegi fi aéroport bi nekk pour dem Saly. te fan yi dinañ ubbi autoroute bi président Macky Sall vers le 20 dina ko tijji dëkk Saly ñëw ñaajo dëkk Saly ñëw aéroport xam nga loolu day nekk rek euh, loo xamante ne du am benn jafe-jafe ba tax na tey defe naa ne CIO ku xam kuréel googu ak seen sérieux ak seen xarañ du ñu jël mukk dëkk bu àttanul di ko confier li nga xamante ni Jeux olympiques de la jeunesse loolu nag moo tax ñi nga xamante ne xamuñu réew nuñ koy téye di dox di wax lu ñu xam ak lu ñu xamul dañu xam ne ku bëgg a jiite réew da ngay am ambition am na ñu doon naan naka lay jëlee xaalis bi tool noonu di tabax lu mel ne stade bu mel noonu Dakar Arena arène nationale gàtt xam-xam foofu la yem parce que nit booy tabax doo tabax pour sa génération da ngay tabax pour génération bi ñëw loolu tax mu tabax ay infrastructure de jet de dernière génération loolu moo lay woon ne fii ak cinquante ans yooyu du xew yi te day jëriñ askan wi defe naa ne nag Jeux olympiques de la jeunesse réew mu ñu ko yóbbu waxuma la activité économique ya fa war a am mais diplomatie sportive bi nga xamante loolu lay indi ba nga xamante ku xamuloon Sénégal di nga ko xam. Mm. ku bëggloon Sénégal da ko xam. defe naa ne loolu investissement bu nit mën a def ba mën a susciter ñu tànn la pour jox la lu mel noonu defe naa ne eh, investissement ba day néew ci lii nga xamante loolu la la eh, organisation yu mel noonu d indi. justement loolu laa doon ñëw sax ñun gis nañ comme fii nii Argentine fan yëpp ñuy topp seen l'actualité bi maanaam gis nañu plus de 4000 euh, délégation wala 4000 athlètes ñoo fi ñëw maanaam est-ce que bu ñu la doon laaj maanaam Jeux olympiques yooyu Sénégal bu ko organiser maanaam benn impact la mën a am ci ci économie réew mi ak ci Sénégal lak la lak la mën a jariñoo à part maanaam peut-être tour bi mu ci am ak yooyu àdduna bi yëpp di ko di di suivre actualité boobu di ci ñaw ci lan la mën a jëriñ ci dundu du Sénégal lam bi nga xam ne si nii moom moo nekk Sénégal. loolu moom pour xam ko dafa yomb man du ma xóotal damay jàpp rek ne boo amoon fii match am Demba Diop ña cay yóbbu seen kër dana bari lool bokkul ak buñ tëjee Demba Diop ñay jaay caaf du ñu jaay ñay jaay ndox du ñu jaay ndox <laughs> tey nag lu mel ni mille nit fu ñu mobiliser war a lekk war a naan war a tëdd. te lépp dara gratuit war ngaa xam ne loolu machine économique la mais nag bul fàtte ne CIO fu muy déplacé wu ñi bokk CIO ak seeni partenaires yi ay investisseurs ay investisseurs lañ te dëkk bu ñu nekk dinañ fa waxtaan te mun naa jur investissement ëllëg mais loolu it dafa am lu mu àndal parce que tey boo gisee diplomatie am solo ku nekk bëgg jaay sa image réew parce que loolu dafay peser ci décision yi nit ñi jël sur le plan mondial te comme président Macky Sall c'est un leadership reconnu en Afrique et dans le monde dafay am solo mu organiser lu mel noonu teel ko boppam pour ay ndawam tey c'est le président Macky moo tee flambeau bi di ko yóbbu Afrique pour fêter la jeunesse africaine loolu defe naa ne ci histoire wu président de la République président Macky rek lay doon tey ci wàllu tàggat yaram ak ci yeneen wàll li mu def defe naa ne benn président mosu ko am ci wàllu résultat sportif ci wàllu investissement dans le domaine des infrastructures sportives kon defe naa ne ñun sénégalais yi comme ni ngeen ko wonee fii léegi mbégte bi ngeen wonee ci am président bu tudd président Macky Sall loolu dafa war a wéy parce que bu wéyee Sénégal gis ci bopp su wéyee ñëpp gis ci seen bopp Sénégal jëm kanam sénégalais yi am ci lu ñu jàpp te loolu defe naa ne moom la képp ku bëgg sa réew di ñaan moo tax dañ ko war a ñaanal mu yàgg fi te jàppale ko. Euh, kon buñ buñ ñu tëj euh, partie boobu rek ñëw ci maanaam comme Sénégal yi fi nekk yooyu maanaam fii ci Argentine presque bu ko dee xool xam naa ni war mag ay dix mille personnes dix mille sénégalais bu ko dee xayma sénégalais yi fi nekk li ñuy gën a jooytu bokk na ci wàllu maanaam wàllu consul wala ambassade wala ndax xaj na ci Brésil xaw naa sori te lu ci bari fi la ñuy te am wàllu kayit yooyu yow en tant que xam si ni da ngay a wax loo xam si ni peut être di nga ko di ko waxtaan ak président ndax seen nekkin fii gën a yomb ci wàllum kayit ak lu lu mel noonu gisee naa ak les sénégalais yi nekk Argentine recevoir na leen seeni i doléances it wax nañu ko ko te lépp digg na ci and ci saafara parce que waxaat na leen ne moom li tax mu nekk ci bopp réew mi mooy fu sénégalais mënti nekk say jafe-jafe muy liggéey pour and ci saafara donc loolu defe naa ne def na ci lu am solo d'ailleurs sax ñu muy jaale suñu mbokk yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan fii muy nag. dund bu jeex parce que du accident du dóor dara àndiwu ko waaye dund bu jeex dafay am am na sax koo xam ne démb la ci génn àdduna nekk jigéen président Macky Sall jox na leen mille euros pour ñu mën ko rapatrier yóbbu ko Sénégal jàppale na daayira murit yi jàppale daayira taj tijaan yi jàppale jigéen ñi ba pare projet yi nga xam te am nañ ko wax na ci ak ambassadeur bi pour ñu continuer liggéey mais liggéeyaat it ba nga xamante ne fii ci Argentine dana am ku fi toppatoo wàllu administration ak ambassade ba nga xamante ne jafe-jafe yu bari yi nga xam ne yéen a ngi koy jàkkaarloo ñu mën koo ñu mun koo saafara donc defe naa ne eh, defaat defaat na mën nam muy Sénégal muy fépp fu mu mënti dem ci àdduna bi lépp luy jafe-jafe Sénégal rek loolu daf koy jël en considération di liggéey pour andi ci ay solution jërëjëf monsieur le ministre xam naa Touba Argentine TV mu ngi lay sant di la gërëm ci waxtaan wi ngeen di jagleel maa leen di sant yéen ñi nga xamante ne lii ngeen di def di weccoo xalaat di informer sénégalais yi fi nekk di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen te Touba Argentine TV jarta ñaanal lu Touba jiite rek ci kanam la jëm.